بقي جناب نسنت سن برام سبحانه وتعالى جل جل انتم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نونج بالحق نيب تي بالحق نيب يلا نو يلا بوري جيك ندوكل جوليت يب تي وير بيغا خامني موم لا نيو تابي تا موي ويرو يونتبي صلى الله عليه وسلم يونتبي صلى الله عليه وسلم بيغا خامني bi nga xam ne yërmande bu yàlla nam ma yërëm jaam yi ëllëg moom la ko fi indee woon sallallahu alayhi wa sallam mu indi fi njàngale mu leer mu set boole ko ay lay yu leer nañ yoo xam ne ñu tase woon ak moom ci ay jamonoom xamoon nañ ne ku ñeme dañ koo dee sallallahu alayhi wa sallam moom moomu nag moom la yàlla yónni woon ci bindeef yépp wa maa arsalnaaka illa kaafatan linnaas bashiran wa nadira moo ne ko woon yow mii di muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak ña la jiitu woon ñooñu ñëpp lañ leen yónni woon ci kaw suuf ngir nit ñi defaru taseeg ëllëg yërmandey borom bi yal nañ ca bokk mooy ñu xam ne li ñu fi indi te bàyyi na fi du lenn lu dul jaamu fi yàlla te wéetal ko wa maa arsalna wa maa arsalna min qablika min rasulin illa nuuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ñun ñëpp nag ku ne xam na ne ku ne xam na njariñul lekk ak naan ci aw yaram ku ne xam na njariñul jant bii léeg mu ne dang ak ngelaw li muy àndal ku ne xam na njariñul koddaay ku ne xam na njariñul garab bu fekkee da wéradi wala mu mas a wéradi le yooyu yépp nag nit ki laal ak loxoom mos ko ba xam tàng na wala sedd na am na lu lu lu mat a gën a bàyyi xel yi ma njëkk a tudd aw yaram lay dundal cër yi lay dundal nit ki di sawar kala wax kala jaamu yàlla waaye nag lay na ci biir nga xam ne moom la yàlla di dikk seet ëllëg ba xam mel na man war a mel waaw wala déet foofee la mbir ma nekk kenn ku nekk lam ca am mu néew mu bari na koy daas di ko daggi te saa su nekk muy xool fa mu ko toll ba xam ma ngay dox waaw wala déet muy iman iman nag mooy gëm yàlla bu mat sëkk wéetal yàlla bu mat sëkk teg yàlla fa mu war a tege bu mat sëkk dara bañ koo rax ku ko fa teg doo tooñ sa mbokkum jaam ndax da ngay ne ëllëg dana leen dajale yéen ñëpp laaj na laaj na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek iman mooy lan mu ne mooy al ixlaas rek mooy looy def wala nga di ko wax nga seet ca yàlla daal xam ne moo waxoon ci alquran ne kulluhum wa kulluhum aatihi yowma alqiyamati farda kenn ku nekk yàlla dana wéet ak moom te moroomam du yëg du yëg du tin ñenn ñi ne ixlaas moom gudd gàtt mooy ixsaan rek الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه أه، وإن لم يكن تراه فإنه يراك في جامو يالا كي أنا غو خامي دا ناي مل داكار لو اك موم سا سون ني ميسال كو تي كو خامي دا نكو جوخ تي لول مو ولا دا نيو مو ني لايال ما كاس دي ولا ما سالل يعني ما تا توك فا كين كو ني دا خامي بو كو فان فونكو غو ويري تي موم دا نكو ما سالل نكو كوكو بوبي تي كوند بو mu yemale ko nak ak bu ko sante te nekku fa tollalewu mu nit ki koy santane ak yàlla misal la rek kenn ku ne amna ko mu fonk ko xamne bo ci jare misal ko dara ko mara xam motax suñu borom ne wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin pas-pas yi nañ koy seetaat sa su nek ba xam ma ngay mel nam meloon am déet nam meloon moy lan moy bañ ñi ñëw bañ ñëw ci kaw suuf dañoo seetaan wicc lu lu ne ci ñun rek daf ñoo dab waaye ak cat wi ci lañ ñëwaale fii yàlla nañ ko jógewaale fii delloo ko ku ñuy wax Muaaz ibn Jabal kuñ xam la ci diine ba ko yonent bi sallallahu alayhi wa di yabal xam ko doon yabal ne ko soo demee nga jàngal leen te wan leen ab jullit nii ci misaal dafa dem ba ci yow na mu dellusiwaat ne ko dama bëgg nga dénk ma mu ne ko dénk bi de mën naa gudd mën naa gàtt waaye fexeel ba looy def rek bul seet la nga am waaye xoolal la ca la fa nga ko teg su boobaa nga jiital yéene ju rafetal rafetal rafetal yàlla rek tax su boobaa loo def mu néew mu bari doy si euh, yonent bi sallallahu alayhi wax ne ca kanam tuuti bu nit ñi gënee bari ba lislaam dugg fu nekk na ma ko waxe woon ما بيت وبر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الجيب فدوجي سوف ياك بكر دفك وفكر كفا الإسلام تعرف مسا ولا أكوار ولا أكاس نيك في برد جدوفه كير فك كو وفكر كفا الإسلام تعرف نعم. كون بو يونس يوم تبصر يالا ورون نكو ياك الإسلام تعرف نينا نك نكسبه كوكو فك اكو فيكو واي لام فك كنيو غانا كيس نيات ني مي بغا واخ موي واخ يونتبي صلى الله عليه وسلم ني غانا سي كيس كورل بو خامن داني جام يالا جام يالا دو سل يالا رك لي نكوي سال يالا ان شاء الله بولي واي داني سي كيس كورل بو خامن داني جام يالا نكو نيري دافي واي اندوت درتي اك سلا نخ نجيستال كاسل لو سل نك فوكو ديغي سافال مو نجيستال ñetteelu kuréel ba mooy nee na am na kuréel boo xam ne dañuy jaamu yàlla nit ñëpp yàlla rek koy xam waaye seen jubluwaay yooyu di ci dóor nit ñi rek ñu naan jaamukat yàlla bon la rek la cay wut firqatun ya'buduna allaha ta'ala xaalisan wa firqatun ya'buduna allaha riyaan وفرقة يعبدون الله تعالى ليستأكلوا به الناس نينا لك مهم إيه؟ سنو برام بقول لكي لنان أنا المخلصون أين هم المخلصون يعني بوقت نيويو نينا خمنا لن ما سوخ دنا بوكا باس باس جيتو بو دغر ايمان دمو ايمان لا نيوخ لب يالله تخ lañuy def lépp yàllaay tax ñëpp ne noo ngi nii mu ne gaa yi yëgul ma ñi alkan ana ñaari kuréel yi ca des nga xam ne yaabuduna allaha riyaan wa yaabuduna allaha li yastakbiru bihi nnaas faw ñu wuyu ndax ku moo dañ wuyu mu ne gaa yi umdu bihim ila nnaar yéen moom kenn du yóbbu waaye dañ leen bamax pamte pamtay leen dugal leen fa kenn bëgg sa dugg yàlla ñu ca dugg ما وخون الشيطان بيق الشيطان لا لأغوينهم أجمعين وينك إلا عبادك منهم المخلصين يلا خلنا بنوك المخلصين المخلصين مخلص باخنا وي مخلص مو متجي مبوك مو يلا كان تقلين نيبغي باغا خمنا شيطان من شي دار ناغو ماشي نيوم شيطان مو أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين مخلص, مخلص. ñaari kuréel yi ma mujjee tudd nag te mooy safaanoog ixlaas wala muxlis mooy njistal wala di jéem a dóor nit ñi di wax lu niroog dëgg te fekk dëgg ga caaxaana ko laal léeg-léeg nga dégg kuy wax dëgg goo xam ne lii caaxaan la sa jublu jëlbul intibaax lay def daa bëgg ñu déglu ko rek ñu ko dégloo lu mu bëgg a jàllal jàllale rek ci misaal ku négoon bañu bañ liqaam ba nga xam ne taxawal rek a des mu ne ca sa mu ne ca buntu ba sa gannaaw ni fi ñu jëm jàkka ji daal mooy xebla ñëppay geesoo ba xam ki ko wax comme noonu bisu keroog day siiw lool waaw ndax dana ko nekk bi waaw wala nit ke la wax la ñuy jumaa ji jëmut xibla bu ko waxee ñëppay geesu ba xam ki ko wax comme noonu dana siiw keroog ndax xaalif too araf naa benn xaalif too araf soo bëggee nit ñi dégg la rek. xol waxam ki wax kum doon rek waxal lu bokkut lañuy wax rek waaye ndax su boobaa dana ko jik waaw wala déet moo tax ku dugg ci daayira muxlisiina yi wala muxlasiina yi ma nga ca daaray daayira munafiqin yi te innal munaafiqiina fi darki asfali min annaar ku ko xam nag xam na ci munafiqin yi la bokk te faatoogul توب ويسو مرة من إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله إخلاص لله جواب نسب الله فأولئك مع المؤمنين مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما دل وقت القرآن من خمر يوم أم إخلاص مي إيمان تموي إحسان رخل كوكوج نيكو در ظلم ظلم في نرى الشرك ليتك manam li ni yàlla rek rek rek taxul muy wax wala yàlla rek rek taxul mu diko def neena na lahum al amnu wa hum muhtadun ñoo ñi ci jàmm la ñuy nekk fii ak fa ndax dog na ñor woote dëgg ma lañ dëkk ba tafa ñu yéene woon al amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika al amnu wa hum muhtadun yunus bi sallallahu alayhi wa sallam ne su ëllëgé lay léral loola moy dañuy def aduna muy jëm ju taxaw ne yàlla ne gaayam ne dama leen sétal ma ca lé taxaw la ma ca mom te moy la gaay doon def te yàlla rek tax ànd ak ikhlas bu leer suñ ko tanalé ne ko li ak li ak li ci la bok mu ne li kon maa ko moom la ca dess nag mu ne seet leen seeni borom ngeen jox leen ko waye man li la mom yal na nu yàlla boole ci ahlil iman yalla nu yàlla boole ci ñinga xamne seen pass pass seen wax seen jëf seen jëfëm seen digënté jàmm lépp yàlla rek kay tax duñ ci mu dara lu yàlla te yàlla nga defal deg ak top te boole ci boole ñu ci ñinga xamne xam lu riir ma bari bari bari laa xawfun alayhim wala hum yaxzanuun يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين آمين